abonneel gaaw ci sa chaîne bii di ASG production gi jot bépp xibaar bàyyi ko ci yoonu murit أستغفر الله جل الله باقزونا ليوم مستغفر لملاك والأميم توبوا إلى الله وتعدوا الملا تبادا تقول قلوبكم قومي مكاسبادا فكلنا فليتوب يرجو متاتبادا غزق بالله هابا متاقبادا هذا بالولا ذا المناقبات مما ذكرت من الهجنة والهجزين الغمد لله لم ما قد قدا وديني من بعد ما كنت لا فقر وزاد ليلي حمدنا يكافي مزيدا منه في الوزوي ثم صلاة على المقدر من همدي ثم صلاة على المقدر من همدي خير البرية من بعد ومهتدي الذي لم ير غيره ولا غراه في زين غدا والنولا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة له ولقاد الكلام فرغني الأكرم دفغا يدوم بأنني قل وقف وخديم لو غذا بي وما الأكدارا ولي سوانا وجال عداراي هيا غلى اليدا فقلبوا ولي سوانا ذا نخلبو نخلبوا دهل مبايق غاد لي سوابا هل الذي أورثني سوابا هل الذي طلب كوني الخديم نمو سلامات البرية خديم لمن كن يدي حبيد محمدي ومن غالبني أبيد ملك الذي ليس له المباخ لي غار ما غابني المباخي ناجاني القلم والخبر وجاد للواد والكبير فرغني الجميل نما النافع أعلاني الملك والريب زاغ مجارمي لمن قبل نقا مدر ديما لي يقود من غير واجعل توسلي لمن يدعو به سعادة الدارين وفي لبغي وليجد وللذي دعاني لنزمي بأمني وردواني وبسعادتي وبالخماية عن جملة الأزواء والخماية وبالنجاة من سؤال وعذاب وسكرات الموت ربي والخصاب وبالبشيرات وبسوري عند مماتنا وبالنسور وسلما على النبي والي ما زياب النجب واغفر لوالدي واغفر لجميع أغلي وجملة زياب يا سميغ واغفر لكل ذي تعلق بها واقي سادتي يا ربي والد بنا وقونا وقلنا لنا قد لنا من ربنا وسليا على النبي وسلم وقد بي غاجد كل مسلم لا إله إلا الله فأل شيء لا إله إلا الله فأل ما لا إله إلا الله فأل إبراهيم لا إله إلا الله فلا إله إلا الله فال شيب لا إله إلا الله فال مزيخ لا إله إلا الله فال جير إبراهيم لا إله إلا الله خالق للو شرب لك مين أبتغي برم توبا جارا براي أعوذ بكلمات الله تعمد من شر ما خلق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا إليك تبت توبة نصوحة واجعل لساني فرد أفسها واجعل لساني وخلبي ذاكريك معا عند الممات مع الإيمان يا الله سدد لساني نور جناني صفي أماني وسد براي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبوك جلتي مبوك تالبي نيونجي سنتي الله سنو برام سبحانه وتعالى جلتي أنتم بتدبا عليه الصلاة والسلام di ñaanal Cheikh Ahmadou Bamba Serigne muntaha bashirou mu yàgg fi loolu tan ak wér ak mbolem njabootu borom Tuubaa gi yépp di ñaanal bu baax maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh Jëmbu Fall suñu borom yàggal ko ti wëral ko mok mbolem mbokk taalibe bi yëpp di wacce nuyu bi ak ziar ba jotay bi nuyu bu baax Serigne Jibril Lo mi nga xamné mo fi top jotay maam Cheikh Ibrahima Fall top jotay jotaayu Cheikh Ahmadou Bamba ni di ko jox wacce mu mat sëkk. bu ñu ko tuddee rek dana yóbbaale ñëpp jaar ci Serigne Jibril Ba moom Serigne Fallou Ndiaye ñu yóbbaale mboolem waa daayira jës bu xulóo bi ñu fekk si fii ak mboolem yeneen daayira yi fi jaar yëpp rek xam naa ni ko Serigne Mouhamed Lamine Diouf Hamza Baye Fall waxee muy ay kàddu cant ak ngërëm tàmbalee ci Serigne Amsatou bi nga xam ne mooy jëwriñam ci biir kër sëriñ bi daanaka lépp rek ci moom lay dellu waaye muy sant bu baax a baax a baax. mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne teew nañ fi tàmbale ko ci daayira yi fi teew Miftaahu Saada Miftaahu Muna bu Jinaan ak daayira Jazbu bi nga xam ni euh, lépp mooma wax na ma sànq ni ma lu bare bare bari ci ak jindikoom ci yoon wi ak toqantalam ci yoon wi ci daara ji la bawoo ci buntub Sëñ Fallu bi toog lu amul seeta nag xëy na mën naa bari jafe-jafe waaye daanaka lépp rek jotaay bi wane woon na ko hmm. muy ak tawfeex joo xam ni lu rëy rëy rëy la ndax xëy na dama naan moom daa bokk ci li siiw naan am sama yëkk yu ma yeew ci ci ci gétti jàmbur waaye waxtu mu ne soxla dama di dama di yeewu rek ñu kon sëñ laay mi ngi sant mbokki taal bi yëpp ci maanaam jotaay bi ni mu amee di santaat boromam bu baax ci dimbali bi ñu ko dimbaliwaat bu fekkiwaat jotaay bu mel ni ndax amaana ñoom fekkiwuñu waaye su doom ñu ko dimbali bu ko maanaam fekke ko ci ngëm fekke ko ci taalibi fekk ko ci léppam ma jox ko moom Cheikh Ibrahima Fall léppam ma jox ko Serigne Amsa moom Serigne Sonia loolu ak cant bu wér mën ci war a ñàkk. Hmm. mu nag defi lii ko defee mat naa roy lool ndax fii ñu nekk ci xam na ne xeeti bi si mel nii ni ko baaxoo doxee ñëpp xam nañ ko daanaka suñu nit ki fay di ko xëpp ay boisson ñii di xëpp suuf ak lu doy waar waaye nag wax dëgg du civilisation islamique. gisuñu ben sahaba wala kenn ci ñu bax ñi wala lenn ci ku ñu tuddu tudd sëriñ bi mu doxé nu mel noonu ginaaw ba nak magal ko mom lu war la waye nak teg ko ci sunna la waxoon kon ni nga ko defee woo mbokki tay bi yëpp fekk ci barab bu sell bu tedd bi ci daara Jazbul Xuluub nga ànd ko ak ñoom ci alxuraan ak ci khasir ak ci waxtane borom Tuuba lool dara gënu ko dal xel te dara gënu ko doon aw yew te bo waxtu boo fi jógee da nga gëna soñu ko di nekkat ci loolu boo waxtu bi fekkaat la fi inshallah rabbi kon loolu moom nañ ci ñëpp roy te xam ne ni ñu ko waxee rek dafa jot sëkk ñun murid yi ñu wane suñu bopp ci biir terrain bi ci biir espace bi jël culture bi ñu Sëñ Tuubaa yare jox ñu ko jaare ko ci xasida bi ñu fësal ko fii imposé ko ndax dañoo toll jamono joo xam ne kenn ku ne sa culture moom ngay ñëw teg ci marché bi muur ko defar ko ba mu rafet ngir bëgg ñëpp jënd ko mu mel ne ñun nag culture sëriñ bi ñoo ko fi àndaale kon war nañu góorgóorlu ba waxtu wane mbirum sëriñ bi yëkkati ko ci kaw ak kaw loolu nag buñ ci xeeb dara xelin gi nay gën di murite waxee ni nay gën di murite jotaay yi nay gën di murite te lépp ñu am ci ak ful ak fayda bañ ci xeeb suñu bopp ci dara mënoo gën ñëpp ba noppi di di di xeeb sa bopp xeeb sa bopp nag ak naw sa bopp daa bokk naw sa bopp baaxul waaye nag nit day gëm boppam bu baax gëm li nga doon xam ne yow kat sëriñ bi maanaam moom muy wuyu moo la tànn boole ci boppam loo tax mu tànn la nag moo ko xam def na ko ci yow waxtu boo nekkee ci li nga war a nekk ba sëriñ bi yee ko ci yow kum doonoon sa cër dina la ko bàyyi xam ne sëriñ bi fàggul na la ko noonu nag suñu mbir mooy xasida yi kon nag ci gën a góorgóorlu euh, liggéey bi nii rek lay demee xam naa kàddu yi bëggoon jàllale ko xëy na ëppoon na lii li nga xam ne moo ci suñu xel rek ci suñu gàtt aliou moom lañ doon jàllale di santaat tamit mbokki taal bi yëpp ndax ginnaaw dañoo jóge ci bis bu màgg muy bisub xasida àndoon ko ak mboolem murid yi ci njiital sëriñ